gën a jekk gën a jot gën a am njariñ gën a baax muy nuyub lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di faral di wax ne nuyoo boobu buñ ko bàyyi woon xel rek ñëpp ñëpp xam lan mooy diine muy nuyoob lislaam nuyoo bi rekk convaincre na ñi am xel ñépp xam ne lislaam moo gën a wér ci diine yi moo gën a jot ci diine yi moo gën a leer ci diine yi li ko waral mooy islaam bi mu jógee rekk nuyoom daf ko tënk ci li nit mënta ñàkk muy jàmm jàmm moom ku la ne mën na koo ñàkk waxu la xam te Cheikh Abdoul sunu jàmbaar ju mag jooj daa waxoon ne bu ngeen xëyee dee leen ñaan jàmm moo tax yàlla nanu dee leen wax asalaamualeykum waaye nag nañuy xam li ñuy wax moo gën romb nit ne ko salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam nañu déggaale li ñuy wax xam ne dangay ñaanal nit ki jàmm mu ñaanal la jàmm waaye boo ko waxee nit ki ba noppi nag boo fa jógee na nga jëf jàmm ci moom moom it mu jëf jàmm ci yow lislaam dégg la laaj wax nit asalaamu aleykum ba noppi yendu ci loo xamante ne ni boo sañoon du dund jarul wax te loolu du max naawu li taxoon ñu jox ñu asalaamu aleykum lislaam dañ ko war a jàngat benn par benn déggaat ko benn par benn ndax li am solo mooy ak dégg xayra ma utiya al abd li ëpp solo ci li yàlla di jox nit mooy dégg yàlla na dégg lislaam jàmm jooju yàlla nañ ko am sëñ Abdul Ahad nee na loo gis nit def ko ba mu koy def daa am jàmm waaye lu waay bëgg def te amoo jàmm si yow la ne di nga ko bàyyi ba am jàmm nga dégg ku naan hii sama toolu ren ba kay nangam dafa am jàmm rek wala dem naa Dakar ba ñëw wala dem naa Italie ba ñëw am naa nangam yàllaa ko jox jàmm rek waaye bu ko yàlla tàggalee woon ak jàmm loolu yëpp du ko mën looloo tax ñu bu ñu gisantee rek islaam nañu wax leen asalaamu aleykum kon jàmm jàmm jooju moom lanu sëriñ bi bëggal moom lañu islaam bëggal àdduna ak alaaxira yàlla nañ ko am yàlla nañ am jàmmi xel yàlla nan am jàmmi xol yàlla nanu am jàmmi ruux yàlla nañu am jàmm ci li nu wër lépp ndax lenn lu ci manqué rek li nga bëgg lépp doo ko mën a def kon noo ngi ñaan ci jotaay bii nuyoo boobu yàlla na ko sunu borom def ci ñun ñëpp defal nu jàmm eh, àjjal na sax buñ fa àggee ginnaaw sunu bakkan salaamun aleykum tibtum wala udxuluha bi salaamin aminiina rek ngay dégg kon yàlla nañ ko yàlla defal ci barke bis bii ak barkeb ñu baax ñi fi teew ak barke seen jur yu baax yi noo ngi ñaan ci barke bés bi tamit yàlla may ñu wér ñun ñëpp Cheikh Abdoul Ahad nee na lu waay bëgg a def te amoo jàmm xam nga di nga ko bàyyi ba am jàmm waaye nee na ku wérul loo am wér lay jar ba ba ngay wér yow dootoo def dara loolu lay tax a wér rek ngay lijjanti nee na kon bu ngeen xëyee dee leen ñaan jàmm ak wér yàlla nañ ko yàlla defal eh, noo ngi nuyu ñu baax ñu fi teew ñëpp ci nuyoo boobu man gis naa sax li sëriñ Moustapha Salihu di wax ne sëriñ Touba bu ko àttee ci ya nga xamoon dafa mel ni foofu lu murit yëpp war a ne ndax boo ko àttee ci ya nga xamoon rek dese koo xam ndax bokkul ak yeeg nit ñi xamoon la nit ñi xamoon lépp jëfaat na ko ba ñu xam ne dëgg la dama bëgg ngeen déglu li may wax baax lu fi nit ku baax jëfoon sëñ Tuubaa jëf na ko ba ñu xam ne dëgg la du dégg ngeen lool mu jëfaat nag loo xam ne ñoom xamuñu ko ña fi jaar ñépp mënuñu ko wóor na yàlla kon kooku dundam du mënee su ko tëkkaleeg benn dund moo tax mu ne xustu xayaatan laa tura li xayri làq naa dund goo xam ne ku dul man du ngeen ko gis ci moom bu fi kenn jógee nag naan sëñ Njagaa ko wax sëñ Tuubaa ko wax ñu ne ko sa dund lan la mu ne mojisatan baanat li usni xayri kon dund dund googu bu ne mojisa la mojisa bi duñ ko jàngate ne dañuy ñëw rek di ko yéemu niñ koy jàngate mooy fexe ba ni ñu tollool ñun ku nu gis xam ne sëriñ bi sunu sëriñ loolu mooy mujisatan ji noonu lañ ko war a jàngate mooy li may faral di wax abdan surura li kulli raay hmm, loolu yombul de murit responsabilité bu mag la maanaam koo gis rek wan ko naka la ku la gis jàng ci yow naka la ku la gis xame ci yow naka la loolu mooy murit waaye koo xam te ki tàbbi nga fi barab ñu naan la nii la du nii dese ngaa nekkal foofu sëñ Touba dama bëgg nag ngeen di déglu bu baax li may wax addiisuma gàmmuwuma dañuy waxtaan ngir lu nu jariñ ñun ñëpp kon maa ngi nuyu sëriñ Falilu Mbàkke imaam di koo xam ne moom moom ci boppam du li mu teew moo tax waaye moom xam na ne ku ko fonk la nit ki nag boppam la xam ñépp ko fonk waaye man mii de fonk naa ko lool wekk naa ko lool mës naa koy jëw ndekete ki may waxal moom moomu bokk ndey ak bàyyi ci Bergamo use ngoon mi ngi toog ma ne ko man de sëñ Fallou ku ko bëgg laa te sëñ fallu ku baaxul mu ne ma waaye sëñ bi li nga wax rafet na de maa ngi moom bokk lépp ma ne ko man de waxuma ko woon ngir xam ndax yéen a bokk dara ba ma shahid naa ilaa bi ma alim naa rek laa ko waxee woon te defe naa ne loolu moo nekk ci ñun ñi ñëpp kon nu koy ñaanal yàlla guddal fanam ndax imaam lu jafe la bu fekkee ci sharia rek la imaam yomb na ndax ku jàng ba mën a jiite aw nit mën a defar julli mën a xam lu koy yàq mën a xam li ci aju yëpp rek ci sharia mat nga imaam waaye imaam bi nga xamante ni bii nag mooy jëriñ jullit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg ku ñu yar lay doon ku ñu defar lay doon koo xamante ni ki boo taxawee ci ginnaawam jëriñu àdduna ak alaaxira ci taxawaayam ak meloom ak doxinam dafa am ku ma mës a wax benn taalibe bu ma mës a nettali benn gént ne dafa gént sëriñ Abdul Xaadir mu baax mi nee na di ko jiiti julli te kooku moom xaw ma ko ci wax lu dul dëgg ci imaam bi rek lay wax nii ne bi sëriñ Abdul Xaadir ne allahu akbar ci kabar bu jëkk bi nee na dafa gis jëmm génn ci sëñ Abdou Khadre topp sàppe si kenn ku ci nekk mu jéggalul la yàlla ba yàlla jéggal ko jéggal la mu dégg ko mu soog a dellu ci jëmm ji daal di tarifaate mu ne man de xaw ma woon ni julli dana deme nii moo tax bari na lu ñuy sentaane ci lislaam julli jullit ñu sax xamuñu nu mu toll xam ne ku xamoon ne loolu mu ngi ci julli da nga ko gën a nee na mu wax ko kilifa gu mag mu ne ko xanaa xamoo ne noonu lay def saa bu jiitee mbooloo li muy jëkk a fàggu si digganteem ak boromam mooy yàlla jigéen leen ñoom ñëpp ñoom jiite kon noo ngi yaakaar loolu ci sëriñ Falilou mii ngir sëriñ tubaa kenn la te moom ma defoon loolu moo fi nekk ba tey sëñ Fallou yàlla na sa fan gudd noonu la koy ñaanal buñ jegee ak buñ soree di ko ñaanal sa bokk yu baax yii fi teew nga xam ne ci sëriñ bi lañ bokk te sëñ Dame juf wax lu am solo Sërif Assane Fall moom Cheikh Ibra Fall de dafa waxoon ne ab dawkat ab yéegkat da koy moytu bu la gisee ngay yëpp sa kilifa dana la ah, yéegkat day moytu dawkat de bokk ko rek na daw yéeg ñu ne ko lu lu luy dawkat mu ne xaj luy yéegkat mu ne golo golo moom fu mu séen xaj gis ngeen ko ni muy def day sàkk pexe rek mu mu amee jàmm ma mar murit yu jëkk yi bu ñu gisaan seen kilifa noonu lañuy ñuy mel nuñ ko nuñ serele xolam képp lañuy ñuy seet waaye lijjantiwuñu leneen kon nag ñoo ngi ziyaare ñi fi teew ñëpp bokk ci ñu sell ñi di ñaan suñu borom mu defal ñu ci seen teewaay bii li ñu yaakaar yëpp yàlla nañu ko yàlla defal ci bis bi euh, mu mel ni nag sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Sakkour sànq dama jékki-jékki ne bayit bi nekk ci wakaana xaqan aleyna nasrul muminin dafa mel ni mooy jotaay bi rek waaye nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa la jëmoon سيدنا توبا ديكو واي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يونس بي صلى الله عليه وسلم موي اكزامبل بي گن ماك دار مونو كو فيتي كو اك كو مانا دون اك لو مانا واخ اك لو مانا ديف مونو فخي فخي فخي فخي فخي با دو داغا ورا ورا يونس بي كو كو مانا دون موي لان minni lahu anfa'u hamdin wa shukur ci yant bi la jëmoon de waaye yal nañ ko yàlla defal fii za xidmatin lil Moustapha ma nga nee toog waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Moustapha la tudd tudd Abdou Sakour moom mu tudd Moustapha bàyyam tudd Abdou Sakour te kat fi mu nekkee fi mu féete ñii liggéey fa lañ féete za xidmatin kon nag an fa mu am din wa sukuur yàlla na doon bés bi ci barkeb wa kaana xaqan alayna nasrul muminin ak barke bi yonent bi nga xam ne moom moom ñaari tur yooyu te daje ci sëñ Moustapha mi ja xidmatin lil Moustapha Abdi Chakour kon nag dama daan faral di wax ne Cheikh Ibra Fall dafa am ngërëmal Serigne Touba te ngërëmal Serigne Touba lu ko kawe amul ndax mooy ngërëmal yàlla sooy wax rek dof yi naan waaw déet na sàkku ci ngërëmal yàlla nit ñu wiri wiruñu ngërëmal sëñ Touba muy ngërëmal yàlla sëñ Touba ku yàlla gërëmul du la gërëm nit ñi de xawma nit ñi xawma dañuy olof nag moo daxa nelaw ci xeet yi léeg nga gis ku dem jàng ñaari téere ñëw taxaw di weddi loo xam ne defe na ci ci tawhid la koy weddee te kooku tawhid a ko may loolu xaw ma ndax dégg ngeen li ma wax waaw di weddi dara teg ko ci tawhid naan yàlla rek lañu war a nàngam yàlla rek la ñu war a nàngam te kooku nga koy weddee daa war a nàngamal yàlla loolu ba yàlla may ko loolu te yow yëgoo hmm? te nit ñi nañ def ndànk ndax eh, am na ñaan yoo xam ne maa ngi ñëw ci sëñ Moustapha ak ci sëñ ak ci Cheikh waaye nit ñi nañ def ndànk am na ñaan yoo xam ne dafa rot ci sunna ñaan yoo xam ne man nga ci jànge sa digganteeg sa borom te kat ñaan la ko yonent bi def day ñaan rek waaye ñaan yooyu loo bëgg xam ci yàlla loo bëgg xam ci sa bopp ak foo war a fiite ak fu la yàlla war a fiite yépp mu ngi si ñaan yooyu te ñaan lu mu gën a delloo lu nit ki gën a delloo bopp boppam yàlla delloo ko léppam rek ñaan nga gën a gaaw a te damay faral di wax ne man léeg-léeg ma xool ñaan gu yonent bi wax ba mu àgg ma gis ci sëñ Tuubaa kese yonent bi sallallahu alayhi joxe na ñaan maa ngi ñëw nag ci waxtaan wi damay def ubbi muxaddima ubbi ubbi ubbi introduction ne ñaan jii na ngeen koy ñaanee ndax suñu borom day nangu ñaan yi man leen man ñaan gi xam naa ne na muy nangoo mooy man naa nangul sëriñ bi rek ndax daal xool naa xool ñaan gi dafa am lu muy tegtalee te sëriñ Tuubaa ko def muy allahuma inni abduka yàlla sa jaam laa de euh, muy muy muy lu doy waar nag kenn ku ne man nga koo ñaan waaye ndax jaam ba yàlla di wax moom nga yow xanaa xamuloo ne yàlla boo ko ne sa jaam laa bokkut ak ki nga xam ne kii dafa jëf ba yàlla xam ne ab jaam nangu na ne ab jaam la bokkut ak ki nga xam ne jaamub yàlla la yàlla moom ku dul ja ku dul jaamam amul ñépp jaamam lañu waaye nag am na koo xam ne bu ne nii abdu xam nga ne abdu jooju bokkul ak sa bos waaw daa am ko mas a gane jamono Cheikh Ibra Fall dinaa ñëw ci ni mu gën a dégg ñëpp sëñ Touba dégg gi mu jox Cheikh Ibra kenn mun laa wax fu mu toll daa am ko gane jamono te judduwul ci yoon ñu ñëw ne maam Cheikh nu ñu koy tudde mu ne am na tur bu yàgg bi xëy faa mu ne añu ne ko amagul tur de mu ne na tudd Abdou rek. <laughs> <laughs> ne tudd Abdou rek kooku moom turu ñëpp la boo juddoo ci yoon Abdou nga boo judduwul ci yoon Abdou nga daan ne tuddee leen ko Abdou waaye bu leen ci def dàkkantal bu leen ci def dàkkantal allahu akbar mu ne bu leen ne waxaat de wala ngeen ne wala laxat de bu leen ci boole benn bu leen ci boole turam yi de wax leen Abdou rek ndax noonu la tudd ñëpp noonu la tudd waaye nag bu ngeen ci boolee dakkantalu benn suñu boroom dugg ngeen moo tax Cheikh Ibrahima bari xam hmm, <laughs> tax sëñ bi ci boppam moo jëf ba nit ñi xam ne jaam ba nit ñi xam jaamub yàlla nu muy mel dëgg la dëgg moo tax mu bokk ci turam al abdul xadim العبد جوجو بو ديمي تي مقدمه الخدمه دنان حقيقه العبد وحقيقه الخديم كون خانا ني دغ وخجي بيمي نيان داف ني جام بي ني وخ دغ دغ دغ دغ لاي وخ دي بي يالا نانغول اك جام لغي كات دغ دغ بي يونتي بي نانغول اب لغيام بوب لا وخ ني موم لا Huh? yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni sa jaam la di sa doomu jaam wabnu abdika wabnu ammatika di sa doomu jaam bu góor ak jaam bu jigéen da ngay xool Sëñ Tuubaa ni muy waxee ci soxna soxna su mag si buy wax ci moom ak buy wax ci maam Mor Anta Sali ku baax ku Makka ni mu leen di yóbbaalee géew loolu ci ngay xam ne ñaan googu ñu ko dégg bariwul te loolu ñi ci xam dara xam nañ ne loolu buñ ko toppoon fii digganteem ak ay juróom rek te doo dégg ku ciy waxtaan waaye naa naasiyati bi yëddika sama tum mu ngi sa loxo yow yàlla xam nga ne loolu du jaam ñëpp ko war a wax du jaam ñépp ko mën a wax ndax koo xam ne bés bu set dinga nga xëy yendu ci lu naqari yàlla ba ngoon boo ne nasiyati bi yëddika xam nga ne foo jëm yàllaa ngi la yor waaye yow joxoo ko sëptum xam nga yàlla lu moom lu ne boo ko ko delloo loola koy soog a nangul boo ko ko lu mu bàyyi kook yàlla yàlla bi mu la bindee ba noppi da ngay ne ko xam naa ne yaa ma bind xam nga lu tax di nga romb ba tey nit mu ne yàlla bind mu yàlla amul sax bay bind kenn kon ñaan googu bu continuer li waral nitu yàlla yi ba waral ñu waral di leen defal bés yu mel nii ci lay bëgg a ñëw adlun fiya maadun fiya xukmuka adlun fiya xadaauka xoola boobu tawxid lu yàlla dogal ci yow nangu nga ne lu dog la lu wiy la te kenn munu ci dara nga nangu ko bañ fee nekk naa sun borom yàlla léegi ji de moom xam nga léeg-léeg nga dégg ko wax hmm, suñu borom de war naa gaaw da ngay xool kuy wax loolu ah, sëñ ab la waxoon na sëñ Modou juuf làmbaay ne ko Modou juuf nit li mu war a moytu dëgg-dëgg mooy def li ko war ba noppi di jéem a wax yàlla li ko war ginnaaw bu ko defee mais loolu la nit war a moytu ndax xanaa do ab jaam bu xamee li ko war ba ba ne ci ni mu ko war a nekk xanaa war naa am kersa yi naan yàlla yow itam li la war te xam ne ndigam moom moo xam li ko war a asama ak yàlla maa ngi ñëw nag dugg guñ ci waxtaan wi dëgg-dëgg waaye li tax may indi loolu mooy doomu aadama lim xamul moo ëpp fuuf lim xam te doomu aadama léeg-léeg mu taxaw taxawaayu ku defe ne lépp la xam dara ump ko léeg-léeg mu waxee noonu léeg-léeg mu doxee noonu léeg-léeg mu jëfee noonu te nañ ko wattandiku boo gisee ak taalibe ñëw ah kay jërëjëf boo gisee suñ borom sant nu ñuy bàyyi xel mbiram loolu moo tax asaluka bi kulli ismin huwa allazi samayta bihi nafsaka xoolal loolu ni mu réyee kan moo mën a xam loolu yëpp te kat man gis naa fu sëriñ bi wax ni loolu de suñu borom xamal na tur wu lay woo mës tuddee sa bopp bu ñu xam ak bu ñu xamul maa ngi lay ñaan ci tur woowu aw anzaltahu fi kitaabika wala nga wàcc ko ci alxuraan te alxuraan dégg ngeen li Cheikh Mouhamadul Muntaxa wax yàlla na fi yàgg te wér barina lo xamanteni li amna lu ci wàcc amna lu ne ci lawhul mahfuz lolu benen wax la waa kay jërëjëf waay jéglu de kon li wàcc ci alquran yeb dom aadama yi mënuñu ko xam xam nga lutax لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته la متسبعا من mutasaddian الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون كون نك خم خم خم خم ينك القران يب دوم ادم موموم تيري بي واي امنا سي لو بار لو خم لي خمو واي نك بي سي غنا غراو نك بي تخ او او علمته احدا من خلقك wala tur woo xam ne dangaa seet sa benn jàmm nga séq kook moom te ñi ci des yoo seen yoon nekku ci xanaa xamuloo ne murit yi nga gis nii léeg la nga gis murit boo xam te ne bi day toog nii ñu jox ko turu yàlla woo xam ne musul wàcc sëñ Tuubaa naan li xaada naw mi sirran batanaa waxul ay nelaw boppam de wa bi yubaahi kulla man tafattanaa li xaada fi naw mi sirran batana moo tax murit yi nga gis nii sëñ Cheikh Fall Baye góor bu ma saan gis murit buy nelaw bay xaram buñ ko neen ndax nañ ko yow mën a bàyyi leen ko murit yi seeni nelaw xawma lu ci ne bàyyi leen ko ba mu yàwwu rek man de murit buy nelaw duma ko yow ndax ndax seeni nelaw lu nee ngi léeg-léeg gis murit yoo xam ne dañ leen di tëggal salaatu ala bi bu ñu moomal seen bopp ñu ne ci rek kenn du ko yëg da gis koo xam ne que suñu borom da koy déey loo xamante ne lii dindi bi yëpp du ko déey kenn te loolu ñoom ñëpp ñu ngi ci njabootu sëriñ bi waaw yonent bee ko wax bu kenn jóge fii naan day inventé aw alam alamtuhu ahadan min xalxika am na yoo xam ne yàlla da koy xamal benn jaam rek bu ko neexee waaw léegi nag ginnaaw loolu yëpp dafa nëbbu aw istaxsarta bihi fi ilmil xëy indak wala muy loo xam ne da nga koo nëbb ca xëy yoonu kenn nekku ci danga nga fiir sax ba nanguwa kenn xam hmm? da xool yooyu yëpp nag bu amee doomu aadama dafa war a ne teg di xool fan lay jaar waaye nag xool fi ngay jaar li ci gën a gaaw mooy am sëñ Touba xool fi ngay jaar li ci gën a gaaw mooy am sëñ Touba mooy am Cheikh Ibrahima fi ngay jaar yàlla moom. xam sëñ tubaa ci gën a gaaw fi ngay jaar sëñ Touba moom xam Cheikh Ibra ci gën a gaaw bu ko defee nag sëñ Moustapha daf nu fi dajale tey ngir fàttaliku waxul ngir tagg de déedéet nañ nañ nañ nañ loolu amul taggaate loolu la tubaab di woowe auto glorification maanaam toog di tagg sa bopp loolu lislaam da ko dàq sëñ maam moor mu sëñ Murtada dégg naa ko mu ne li gën a bon ci nit mooy woo nit ñi ba noppi di leen wax sa bopp waaye lii bokkul ak wax sa bopp ndax dafa am di tax ma àndee ko nii dafa am ñoo xam ne dañoo defe ne aw nit a dajeele aw nit di leen wax seen bopp demewut noonu aw nit ñëw séddu ci lu baax lu ñëpp bokk lu ñëpp xaj lu ñëpp mën a jariñoo ñu ñëw nit ne nit ñi kaa leen ñu ànd jariñu danaa ko àndil ay lay de bu soobee yàlla yant yàlla xuddar ak Moussa bin dajee sunu bis bii li ko waral ci ñetti yëf yi ñu séqoon da ci am boo xam ne boobu rek lay jukki pour wan leen importance su jotaay bi mooy عمل جداره فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وانك لور اللوليب وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدكما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك alxuraan yàlla nañu yàlla may dégg ko sëñ tubaa da koy da koy wax lu bari bari bari dégg googu li dégg ko suñ borom defal ci alxuraan ndax moom ni mu ko déggee. Mm-hmm. ci dégg ci moom la dégg yem. waaye nag ku mu ko digtal tamit ci yow la dégg di yem. Mm-hmm. Moussa ak xullar bi ñu àndee ba xullar war koo wax lam def yépp ba ñu àggee ca tabax ba da ko ni tabax ba ñaari jirim yu dëkk ci dëkk bi ñoo ko moom. waaye ci suufu tabax bi dafa am trésor boo xam ne ñoom ñoo ko moom waaye nag dafa wax trésor bi rek ne wa kaana abuhuma saaliha waaye seen bàyyi ku sell la woon ndekete kat ni nga ko war a déggee mooy dama bëgg ngeen déglu ma de ku sell koo gis dencal na ak njabootam ba ba ñuy teew ci seen kanamu borom loo xam ne bu ñu àggee ci asudahuma asudahuma ji nag mi ngi koy dégge mooy nangoo topp ndigalu say waajur aw ci seeni tànk man asudahuma ji noonu laa koy firee waaye do du ponkal mu ni léegi li sëñ Fall waxoon maay doomi diw mën a ko ràkkal rek fexeel bay diwaay kon man asudahuma mat du ponkal ku ceenee déedéet ku daw tëba tëba tëba tëb ba lépp rond kooku taxul ñuy wax ashudahuma ashudahuma dëgg dëgg dëgg ni nga koy dégge mooy ku majeur ci yàlla te kooku mën naa bañ a am at yu bari loolu moo tax sax ñun ñuy ñun ñuy nekk ay mag ci njàngaleem Cheikh Ibra fekk kooku ay atam néew lool ñu koy raamal denc boobu nag nga xam ne ku sell ku nekk dencal nga ko sag njaboot denc boobu moo nu fi tax a daje denc boobu nag moo nu fi tax a daje te denc boobu lan la yërmande rek la rahmatan moo tax nag sëñ Moustapha wooñu ci denc bii muy sëriñ Abdou Chakour Fall ibnu Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina léegi Serigne Saliou njaay ñoo ngi koy sant bu baax bi muy wax wax na histoire bi muy lu wir nag du ay foraatu bokk ci yi nga xam ne ah, dañ koy foraatu di ko tegale dañ ko gëstu ba xam ne lu am la Serigne Abdou sakoor wuy juróom wu jigéen suñuy nopp moo mas di dox ba muy nekk gën a féete ndaw for ak këyit foofu la mbir mi tàmbalee mu gis ñu bind ci mbindum arab mu daldi ñëw jox ko soxna Cheikh Ibra si ko yoroon ndax soxna Cheikh Ibra moo ko yar ci kër gi ba mu màgg ñu joxaat ko Cheikh Ibra mag ñi bokk ñu ñun loolu de ko ko ko defoon fii sa kër fa lay doxe tas de kenn dootu fa fanaan hmm? sa soxna yar gone ba mu màgg mun la dama la ko bëgg a jox mu daal dem ci soxna soosu jox ko ko soxna si jël ko ne ko lii de xam naa mbindum araab la nañ dem ci Cheikh Ibra won ko ba mu agsee jox ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra denc këyit gi ndeke maam Cheikh xool na ko gis ñu bind ci Abdou Chakour hmm, xoolal loolu moo tax sëñ Tuubaa fàggu tiifam kenn du moom am na am na ko mas gane jamono moom am na juróom-ñeent fukki at ndeyam daal di faatu ci bi muy juddu te kooku xam nañ ko sëñ Tuubaa ne jox leen ko maamam ñu ne ah maamam borom juróom-ñeent fukki at kii nu ko maamam di nàmpale xanaa day wut ay soow ak ay yëf di ko ko jox ñu daal def li mu wax moo tax jëfi ndigal moo gën a wóor loo gis te yow lim ñu jàngal moo gën a wóor ñu daal di dem jox ko maamam maamam teg ko nii ci wetam fanaan ak moom ba bët set lal bi yëpp tooy xëpp mu jóg di xool ndekete ay weenam moo doon sotti noonu te am na juróom-ñeent fukki at te sëñ Tuubaa ne la jox leen ko maamam rek waaye waaye jooju bokk ak kenn de hmm, buñ ko fi buñ fi jéem a naan dañuy silwiisi silwiisulu ba di ko wutal morom.

du parparloo nag xam nga parparloo ak nangu mbir bokkul man am na benn bés benn waaye bu ma naan xaside yi ngeen di ngaf ngaf fu ngeen toll di jàng nga dégg alxuraan ma ne ko yéen da ngeen a xamul dara ndax xasida li ci nekk lépp buñ ko doon wax te duñ ko teg sax ci moom li muy bind ci xam-xamu rek lañ koy teg ak xam yi fi jaaroon amul kenn ku mës a bind am bind ba mu bari mbind yëpp jamono di dox di dox di dox ñi di ko natt bis bu set nga tollook li nga bind te bés bu set li nga bind raw jamono bari na ku bind te boo demee ci li mu bind tubaab yee ko wax de nee nañu moo yées li muy wax mhm, lu garaaw ngoog bind ba ñëpp naan ci li waaye fekk àggoo foofu de xel nga waxe rek ak xalaat ak yeewute waaye wóor na yàlla foofu ngay waxee neewoo fa tubaab bi dañ koy def ay débat tubaab bi nee nañu ñun léeg-léeg ñu gis ku wax dara ñu xam ne moom tolloo fi mu waxe day wax rek ak gufa waaye nangi mi nangi mi millions yi bayit nga bind ko te bayit bu nekk buñ ko nattee rek gën la ciy gis loolu benn yoon la mas a am te sëñ Tuubaa la hmm? manes na ko étudier neneen nu bokkul ak sax nii ñuy waxe naan leen archival kursi yi yooyu dafa sori ay arsi kursi yi jërul tudd ndax ñun du ñu xam aras du ñu xam kursi yu lu ñu wax wax dara li ñu war a xam mooy lii ñu koy analyser analyse u nit nit ku nite loolu sëñ bi jëkk soxla balaa ngay jéggat fu sa yoon nekkul hmm? Hmm? sëriñ bi bi mu waxee kooku ne nañ ko nañ ko jox maamam maamam dafa dafa dafa yeewu rek ween yi di sottu te am na juróom-ñeent fukk ñett fukki moom moo nàmpal kooku ba mu fer mu soog a faatu bi ñuy jógee Jolof di ko yenul bagage yi daneen nañ ma wutal ñu dul télé baatu télé boobu daf ko waxoon rek ngir ñu am kàttan la daal ñoo xam ne duñu gaaw a sonn loolu dong la ci jublu woon waaye mboolem ñooñu am na mag mu ma ci wax ma sa wax ne ma ñun ñi ñëpp ñu ngi ngénte ba am juróom-ñeent fukki daad daal ne man sama taw moom sama sama caat moom bi ma ko am juróom-ñett fukki yu teg laa am muy bàyyi ku siiw fii du ma wax turam ndax loolu kenn du ko wax ci kii te nee na baatum ñu dul télé rek <laughs> te kat ñooñu bés piñ ci sax duñ télé ay sëñ tubaay waaja benn baatu ñu dul téele rek nga xam ne ñu dëgër rek ñoo xam ne ñoom la ci jubloon yàlla ne ko yow yow loo wax danaa ko topp ba fi wax yem ndax li nga ma defal hmm, ñu dul téele hmm? bu ko defee nag bi bi nga xamante ni bii nag jox nañu soxna si Cheikh Ibra mu toog lu yàgg nag amul gone Cheikh Ibra dal di yónnee ci Serigne Touba ne ko dañu bëggoon mu ñaanal mu am gone am mi Cheikh Ibra nga yor këyitam ñu bind ci Abdou Chakour sëñ bi bind ne bu ngeen démé na and ak mom mu yar ko ba sun borom tuddu sëñ Abdou Chakour feeñ jamono kon ko sakutifu tiifu Touba xam nga juddu manam gane jamono ci ñaanuk sëñ Touba yombul li sëñ Abdou Lahat mu baax mi nga xam ne moom sëñ Touba rek lay dund xamul leneen li mu waxoon nettali woon naa ko daaw ci màggalu sëñ Abdou Sakkour gi yàlla nañ ko yàgg a nettali li sëñ Abdou Sa li sëñ waxoon sëñ Aziz Falloum sëñ Modou Moustapha Fall mu nuyu ko nee na maa ngi defe ne lu ne la sëñ bi xalaat mu ne ma ah ma ne Aziz jaaxal nga ma nit koo xamante ni kii sa amoo mel na maam mu amul ngërëmal sëñ tubaa ma ne jaaxal nga ma nga xam ne moom looloo ko jaaxal ci nit dafa ne sa maam yëpp sëñ Tuubaa gërëm na leen ndax ndekete boobu xelam a ngi si moom sañ Mourou Moustapha la ko jur Cheikh Ibra ko jur yaa bintu jenn ko jur Cheikh Issa jenn ko jur te yaa bintu jenn ndeyam sëñ Ibra Sarr Njaañ ko jur ndekete loolu la sëñ Abdoulaye di xool ci moom sëñ naar jenn sëñ Abdoulaye da ko daan woolu ba mu ñëw mu ne ko da dama laa dama la dama laa bëgg gis rek xool la xam ne kii doomi ndigal la doomi ndigal ne sëñ Abdoulaye ne dama koy bëgg di gis doomi ndigal ku dul doomi ndigal nag yow boo fooy dox di nga xam sa bopp kenn du la bëgg a gis wax ne ki sa ndey ak sa baay dana dox ba daje rek ñu tëri tëri ñu të am la ba noppi nga nga bëgg defe ne mën ngaa yilif nit ñi yàlla du como de yàlla du como de waaw waaw waaye waaye da daan wax sëñ naar ne ko dama laa bëgg di gis ndax yow doomi ndigal nga sëñ Tuubaa moo la sàkku kon kii ñuy wax nii mu sëñ Abdou Sakor Fall sëriñ bi moo ko sàkku ah bi mu ganee jamono Cheikh Ibrahima yónni ci moom di laaj tur sëriñ bi ne leen tekki leen dindi leen kii boobu ma ko joxoon ngeen xool li ci nekk نقول كو جسم عبد الشكور شيخ يبر جن تير لم فرن مام صح نزي مي عبد الشكور آه كي كات متنا متنا فاتلي كو كات تا واخنا ني واخنا ني كرك بما كاي واخ دامالين ني فو واخي ليغي واخ دافا جافي ñu baax ñëpp abdou sakor lañ tuddu xamul ngeen loolu ñu am ngërëmal yàlla ñëpp Abdou Shakor lañ tudd ndax jaamu nañ yàlla ba àgg foofu te sëriñ lii nii moo ko bind loxo xita ci eh, ismu laahi laxsam inna huwa ab huwa ismu laahi laxsam inna huwa allahu taala xaqan ajaaba rabb sama ci la waxee ni loxo xita bi shakira wa tayyabal mashakira abdan shakuran zakira wa bi baqaa'i asama xanaa kon suñu sëñ Tuubaa Abdu Shakuur la tudd balaa fi kenn di jóge naa si gaa yi nag ñoom tamit te kat tur yi mu tur yi mu gën a bëgg ci tur yi di ko tuddee boppam mooy abdan shakuran ñaata yoon ngeen ko jàng ci xasida yi yoo xam ne dane moom Abdu Shakuur la moom sëñ Tuubaa waaye donne ko ci njaati géem la yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy julli ba ay tànkam di néew yi nettali naa ko waaye nag la la répétition est pédagogique ba ay tànkam di néew yi lu ko sunu ndey ay sa wax xanaa du yow yaa yow la yàlla ne inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan li yaxfira laka llaahu maa taxaddama min zanbika wa maa taaqara wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allah nasran azizan xoola yooyu tegaloo waaye yonent bi kenn du moom innaa fatahnaa laka fathan mubiinan rek daa doy fathul mubiin <laughs> laa ilaaha illallah kooku kooku bu ci yàlla tegee dara rek kii moom du kenn kenn du moom li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'akhkhara yow yaa ngi teew fii ñu ne la bàkkaar yi jëkk yi ak yi mujj yi jéggal nañ ko yi bu daal daraa ngi ñëw sax jéggal nañ wayuti man yaamatahu nag يلا كم مت لأي خيولم تيو دايلنا ويهديك سرات المستقيم انك دايلون واي وينصرك الله نصرا عزيزا منك كي مو بري اي جرال كي مو بري مي واي بامكو واخي نكو خنا دو ياي جام بابو دفكو ني الفا لا اكونو عبدن شكورا مودال جيب كون يونت بي عبد شكور لتود مامت جاي سيغ توبا عبد شكور لتود kon ñi bëgg ngërëmal sëñ Touba yëpp foofu lañ ne kon sëñ Abdou Sakor am na tawfiix yi am tur woo xamante ni bii ku am ngërëmal yàlla rek mën nañ la ko woowee déggu leen li ma wax de am na tawfiix ju toll ni ku am ngërëmal yàlla turam yi mën nañ la ko woowee te sëñ Saliou Ndiaye da doon wax ci Sakor ci sant xoolal ni yàlla defee taaraar ñi nekk ci àll bi di jaay gerte xam nañ li ma wax ni mu taaraare yëf yu bane wa xalilun min ibadiya shakur ñu niiw nag ci jaam ñi ñu niiw nag ci jaam ñi ñooy sant kon yàlla na nu yàlla boole ci xaaj boobu te nangul na ko ci barke si Abdou Sakkoor mi ak barke ki ko tudde ak barke waajuram ba ak barke ni turam wi ñëwee ndax kat tur lu am solo la بيد ومن يريد قضاء حاجة دنيا وأخرى بلا استدراج من جرى تفديلهم على شيوخ من الورى فنا نون لو بيد بتد في جالبة المسارة سيدنا توبا واخنا كو سي نينا فاجوك اديو أدونا اك الاخره غو نيت كي دوتو تاغو من نن كو ام سي ديف توسول سي تورو غايو باخي kon ñoo ngi def sa tawasul ci turu sëñ Abdou Sakkoor yi fi jaar fépp yàlla na nu yàlla boole ci ñi muy santal boppam te bañ a xool suñu jëf waaye nag kan moo doon sëñ Abdou Sakkoor moom ci boppam foofu la mbir mi ne mhm. ah danaan wax naan nuroo moom bu ci dara desul lu mooy ñu naan la tàllal sa làmmeñ ñu seet ndax du moom la nee na booba moom nuroo gi ak Cheikh Ibra wax nañ ne Cheikh Mouhamadul Mourtada am na bés sax mu ne da koy seeti ndax li ñu wax ne dafa nuroog Cheikh Ibra moom itamit li muy nuru nuru baayam tudd gi ñu tudd ne nuroo naag baayam rek te doomi sëñ Tuubaa di ko seere si rek taxoon na mu ne bu dara taxaw tey ci dëkk bi lu fiy dund nañ ko ren sëñ Mourtada ne nañ daal di dem ndax kii moom dafa mel ni soppeeku na nangu fay yendu ndax xam ne bu fa yendoo mu doy waar sëñ Abdou Sakkoor jamono jii gis nga ku mat a waxtaane la man nag waxoon naa ko ci ab waxtaan ne leen nekk na ma moom une semaine ci kër bu xëyee toog ni Serigne Cheikh Fall Baye Góor toog ni ñu toog nii muy wax ma di ko dégg kon du ma boo xam ne ñëw rek di jal ay yëf rek di tegale gis naa ko ba tàyyi jox naa ko loxo ba tàyyi te nag nit la koo xam ne li gën a jafe ci jamono nan ko roy ndax bu ñu dajaloo di waxtaane ñu baax ñi du ay kéemaan dañ caa bëgg jëli lu ñu jariñoo li mate gën a roy ci sëñ Abdou Sakkoor mooy amul kiñaan dara ci kiñaan fanaanul ci xolam te kat da ko daan wax man mii nuyu naa ko ànd ak ku ñuy wax Cheikh Fall ne ko sëñ Cheikh Fall góor mooy sama sëriñ déglu limi wax mu ne ma seex mooy baayam te bayam moy bayam loolu ñu ko nanga wax ci sen mag ci sen dom bari wu ne cheikh moy bayam te bayam moy bayam cheikh moy seigne Moustapha Fall te seigne Moustapha Fall moy cheikh bi daan ne ma seenul seexkat wax na ma lo xamne ne fa la ak taalibe mën a yem kenn ku sant Fall musuma ko wax mas na ma ne balaa ngay xamne ma la gëm nga ne ku sant faal wala ku yaakaar Seex Ibra lu mu am na dem jal ko fi barab te bu mu amati dara te bu mu ko gestu ne lu nit ñi gaaw gaaw sama alal nga fay jëkk fekk sëñ Abdou Sakkoor ma ko wax ne ma sëñ Seex Faal góor a ko wax ki ñaan dara fanaanu ci moom te xam nga ne ñun suñu jafe-jafe mooy ki waaye nag ñun ki kiñaanu muus muus lu lañ yor da dangay tudd nit nga gis nga gis koo xam ne kii yéenew ko dara naan la dégg naa ko baax la de te moo la gën a xam ne ku baax la hmm, dama koy dégg de ah moom de nee nañ ko baax la ñi ko xam wala nga dégg nag ki ci gën a saay-saay nag moo naa ñi ko xam de léeg-léeg ñu tagg ko da xool xeeti wax yooyu te yaa moom a dëkk yéen a bokk lépp yaa gën a xam ne ko baax la wala xam nga ci moom lu baax lu bari wala jékki-jékki xam ci ku baax loo xam ne nii baax gi ni mu lé ni mu landee nga jékki-jékki naan ah yéen ñiy nekk ak moom nu mel te te yaa ko gën a xam ñëpp xeeti xeeti kiñaan la wa min sharri xaasidin isa sa yabdu sa maanaam lu nit mas a am yéene na benn jikko ngoog boo xam ne bu jar ci moom la sëñ Fall bu jara roy ci moom la bu góor góorlu ndax mu ngi ñu bëgg yàqal lu ne boo gisee ñuy dur suba ngoon di jàng alxuraan suba ngoon xam nga lu tax euh, ñaan yi nangoowul ni mag ña xaasidin isa xasada ki ñaan lu mu tuuti tuuti boo ko nëbbee foo ko nëbb suñu borom xam na ko sëñ Abdou Sakor it sëñ Moustapha mi mën naa seere ne musta wax lu du dëgg du ko wax mukk lum la waxit dëgg la ci moom te noo mën a toll ak koo mën a doon dëgg rek lay jëfalanteek yow dëgg la lay wax ak daraja boo mën a te loolu bari na ay yu ci amoon yoo xam ne ay kilifa yoo xamante ni dañoo nekk ci nguur jogi ci dekk ñew na ko dama lay siyaré ci mëna a préfet daal di ñaaj dugg ag ci fam fam mu ne mu ne ko bu mu amati xawma préfet xawma lan nga waaye président de la république sax man Abdou sakour buy ñew sama kër daf may tar man bokkuma ak ñi nga xam man nyaj duma ñaaj nyaj. gënon bañ nak ñaaj té loolu gisuguma ben nitu yalla bu koy nangoo ko ko jaar ni duñ ko nangu ñoom mu ne ko kenn du ma ñaaj ci biti noonu la dàqe préfet bi keroog wax ji dellu Linguère hmm? lenn la bëggoon ci nit su ko xësee xam ci nit moom Sëñ Abdou Sakor kooku mën naa am ci moom lu ne su ko xamul ci kooku ak ku ko mën a juróom fu mu mën a dëkk Sëñ Abdou Sakor amul soxla ci kooku xam ngeen mooy lan mu ku ñàkk jom gis nga bés buñ ko nettalee lu nit def ci jom waaw góori way ji foo tollu da koy dégg mu di ko waaye gis nga am na baat bu mu daan wax boo xam ne ku mu ko xos wax nag jeex na bés buñ ko nettalee ci yow ak ñàkk jom ba mu ne acam acam laa la wax ne ne nee nañu kooku moom doo gis mukk mu tàmbali dara ba mu àgg mhm. ndax li mu gën a bañ mooy ku ñàkk jom moo tax xam nga loolu war nañ ko jàng te léegi dangay gis nit ku ñàkk jom ba noppi nit ñi di ko ci sant ci ñàkk jom loolu sax bëggoon naa ci dama ci bañ a dugg fu sori ñàkk ba noppi ñu lay sant ci ñàkk jom bi di la gërëm ndax ñàkk jom ngoo def hmm? ndax ñàkk jom ngoo def ful la tamit daf ko amoon ba maanaam kum bokkal ak kum bokkalul ak ku ko xam ak ku ko xamul ku ko mës a siin muy ñëw rek doxinam ak waxinam ak toogaayam ak ni muy organiser mbooloo mi ko wër ci ngay xamee ni kii fulla ci moom la yam maanaam jotaayam kenn du ci def lu ko neexul mu di la seetaan am ngor ngor tamit lu jafee ngor nag daa am ko mës a ñëw di ñaan lu ci sëñ Cheikh Fall góor lu ne mu wax ko lu ne mu ñaan ko sëñ Cheikh Fall ne ko yéen xanaa xamul ne ni sëñ Touba dara ko ngor rek a jafe waaw ngor sëñ Touba dara jafe ko ngor a jafe xanaa xamoon ne sëñ tubaa ñi mu jëkk a defar ñooñu gor ngor a tax ñu continuer ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wéeg li ñu yoroon ba faw sëñ bi ne jok jox ba noppi ñu gore ñun nak bu ñu sëñ bi joxé bu tambalé neex rek da ngay daal di bëgg doon am xaaroona wa li mom mako ñax mom lii mom mako ko sama li man kenn dama fekk dama jëmal laaj yo xane man nangam daal di waxé neneen tambalé di doxé neneen di xolé neneen di and ak ñeneen te fi nga nekkon nan na sëñ bi gaaw rek di durus ay xidma di durus ay jaalibatu lu ne nga wirdu ko fu ne nga jàng fa yëf yi agsi rek nga tàmbali naan déet man nag kenn duma ma jaar sàkk ah kenn du ma kii ah, man li ma liggéey nii maa ko liggéey man man maa ko ñaqal sama bopp mooy la xaaroon doon wax naan lii ma am maa ko maa ko am ci sama xam-xamu bopp waaye nu mujje hmm? kon ko yooyu lañu bëgg sëñ Moustapha moom la bëgg ñu ñu ciy jàngate ci way juróom wu tedd bi waaye woowuñu fi ngir ñuy màggal kenn ku màgg ba noppi màggal ko ñàkk màggale yam màggaluñu bu ko na nit ñi xamee noonu sëñ Moustapha màggalul day fàttali nit ñi jëfi gaa yu baax yi jël ci kenn ku ko jege ku mu doon dara ci moom mu koy fàttali ku xam la woon sëñ Abdou Sakkour ku xam te xàmmee maanaam ni mu xàmmee nit ak ni mu xamee nit xàmmee ak xam loolu sax dafa yéeme woon ba am na ci yoo xam ne kenn mënu koo wax ku mu mës a gis dafa mel ni dañ koy jàngal généalogie nit ñi siire doomu aadama yi dañ ko ko daa jàngal man gis naa nit nuyu ko mu jox ko loxo mu téye ko ba mu yàgg ne ko noo tudd mu ne ko nangam kuy sa baay mu ne ko nangam kuy sa ndey mu ne ko nangam mu daal di tàmbali ku am mbokk ak fu mbokk ma dëkk sëñ Abdou Sakor tudd ko keroog ba kooku dafa mujj yéemu ndax ñi muy wax moom xamu ko moo tax ku ma a gis xam ban xeetu nit nga ak nan la war a def ak yow ak fu mu war a yem ak yow ak lu mu war a séq ak yow loolu itam lu mat a jàngat la nag gars mhm. lu mat a jàngat la xanaa xamuloo ne yewwute ak niteeg ñi sëñ Tuubaa defaroon loolu rek doy na waxtaan كسين توبا دفر كونه واتي نتي يو يو تي غو خامني نبهتني جوني مو خام فالتزيد علما ومعرفة وجعل حياتي أجرا غير ممنون جوني مو خام دوكو ديف تي ني بري نيم دفر نيب نيغي تي نيوم خيل مي ني يور ويسونا سا خيل دوم ادمي تل نونو لا ام مريد ورا مل مريد خيل مي دا نك واخما غودو تا دي nga xam ne lu ñaaw rek ngay xalaat moo tax sëñ Abdou Sakor dafa xamoon te xàmmee ñu war a xam te xàmmee te itamit dafa amoon yaqin yaqin bi mooy lan mooy sëñ Abdou Sakor daana taxaw di wax loo xam ne te boobu sëñ Moustapha a ngi loolu defe naa ne nag ñi ñi ko ñeme bariwul sëñ Moustapha Fall mi jëkk a toogal Cheikh Ibra mi ngi fi. te da ko daan wax ci mbolo ñepp diko ko ne toogaayu Cheikh ibri bi kenn munta te ma tok ci donte ñi jur ñenti fan la wala ñetti fan ñepp diko ko dégg nag mu ne na ko ñëpp dégg loolu xam nga lu ci doy war moy nga am yaqeen ju tol nonu suñ borom dimbali la ba nga ag ci te dara dogul lolu mo moo ndax kat ndi Cheikh ibrahim nan yalla ñu mucc ci ndox te forub nit dana xam dara xam ne moo ko tax a jóg am ndog fe dugg ci ndax yàlla ku ne xam na ne day def makkur mais lu lu rëy rof ci loo xam ne li yaa ngi moom rek koy xam te doo xam foo koy waxe yàlla sii leeg mu may la soxna soxna sa taaru lool boo ko gis naa sëñ bi de tuwaar kàll fekk soxna si la ngay wéy ak moom wallahi al azim mburu sax bu ko daj ci taal boulanger yi sax te koo gis naan yii ci dana ko téye moom lii kii moom tuwarkal fekk yaa yàlla jox la taalibe boo xam ne bii wax ja day baree baree bari yëngu te du la defal dara te dalay yàqal rek ah sëriñ saa ngi ree nag xam nga sëñ biñ ñu tàmbalee ba léegi sëriñ si réewuñu waaye <laughs> dama xamul nag ndax dañ cee amum jiit waaw ah, waaw man doomi sëñ baara nee na ma diw mii nga gis muy laxasaayu topp ci man dama leen koy wax ngir yee sama bopp yee leen rek diw mii nga gis mu laxasaayu topp ci man ma ne ko waaw mu ne lu lu ma naqari ci àdduna moo ma ko teg ma ne ko soo déet waaye mbàkke mu ne ma gis nga kii kii tax na sax sama waa kër dootuñu tuddante te kat buy ñuy soxna si daanaan baaraa dégg weñ àgg suuf nee nee na sëñ Baara lay yéem noonu Baara di weñ àgg suñu ay soxna si ak gëm kii de bokkul ak nit ñi muy temp ndànk nag waaye fekk na ceytaane ga ëpp taalibe bi waaw sëñ Sakkoor xeetu nit ñooñu fu mu leen mas a gis day dal ci seen kaw wax lu dul dëgg ci kanamam nag ku ko mas def moom dootoo ko doon am na bés soxna astu gaawaan mu tedd ma ñëw kër sëñ Aliou Mbawar bi mu ñëwee kër sëñ Aliou Fall weeru koor sëñ Aliou Fall di koy jox ci taatu garab gi tegal ko fa lal bu rafet soxna si di jàng alxuraan toog foofu sëñ Abdou Sakkoor dégg ko siyaare si ko ci kër sëñ Aliou Fall Mbawar sëñ moom daal di koy defal añ moom sëñ Abdou Sakkoor sëñ Abdou Sakkoor añ ba noppi daal di woo ña sant Fall ñi ne foofu ne leen kaa leen jël bool bi balkeelu ci am ci ku ne nañ ko nëbb soxna si nañ dem ci ginnaaw rafetal sëñ Abdou Sakkoor ne diw mu ne ko faal mu ne ko ana ndab li ma leen joxoon mu ne ko dañ koo kii fii ci ginnaaw ngir bañ soxna si gis ko mu ne andi leen ko ci ëtt bi mu di ko gis walla ngeen delloo ma sama ndab moom nëbbu leen diineem am na fulla bu leen ko nëbbu seen bos nee na moom am na fulla ju toll ni nëbbul kenn diineem mi ngi ci li mu war a daan ne ku la nëbbul diineem bu ko nëbbu sa bos foofu la nekkoon ak àggoon na ci nag yor tàngoor woo xamante ni bii demoon na bu dul woon sëriñ Faliilu sëñ Abdou Sakkoor dañ dañu xëy rek ñàkk sëñ Fallou kenn du moom ay sëñ Fallou mën a dellu si sëñ sëñ Abdou Sakkoor demoon na ba àgg ci lekkatul naanatul nangu te wax nit nangu ko ko gis ba mujj gi boo ko gisee danga naan ndax kii nit la wala du nit sëñ Fallou lañ ko wax ne ko boo ci waxul day faatu day dem de sëñ falloo ko sëñ falloo ko woolu ba mu ñëw mu ne ko lii amoo ci ndigal daa war a am loo war a liggéey defal ni ñëpp xam nga moom borom bàttin la bu la waxee defal ni ñëpp du du la bàyyi ak sa bopp xam nag digal la ba na bàyyi sa bopp wóorul daa am waaju noonu sëñ Cheikh Mbacke waaye yéen lu tax xam na kooku nag daa sañ ne gaynde ma lu tax yéen lu ngeen tëri nit du ko bàyyi te sëñ Tuubaa lu mu mës a tëri nit mu ba ko waaye la ko sëñ Cheikh jëkk wax da ko ne da gis ku mel ni sëñ Touba feneen mu ne ko ah, tuub naa ko de mu ne ko xam nga sëñ Touba nu muy teree nit dara moo tax ñoom ko yóbbu di leen laaj de mu ne ko déedéet mun ne ko sëñ Touba bu lay teree dara day dox sa digg ak loolu ba noppi ba dootoo ko mën a def mu ne la bàyyil nangam <laughs> loolu yombul de xam naa ne nag li ñu bëggoon lépp lépp duñ ko mën bu ko defee sëñ Abdou Sakour <coughs> liñ ci wax rek doy naa jàpp ndax mën nañ cee wax lu bari lu tegtalu loo xam ne nit ku yiw ku ko dégg jariñu ci waaye sëñ Moustapha mi yàlla na ko yàlla lafal cet li tax may wax lii ci moom sëñ Moustapha jikkoom moo fi andi nit ñi yëgam yëg yëgam ci nit moo fi andi nit ñi pas-pasam ci nit moo fi andi nit ñi li ci ëpp wàcce boppam ci nit ñi moo fi andi nit ñi mu mel ni kon buñ ko toppoon mën nanoo fanaan fii di waxtaan ci Sëñ Abdou Sakkoor waaye xayra kalaam xayral kalaam ma xalla wa dalla ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñu wa dalla ci wax ji ñu wax li muy niiw niiw yàlla na nu jariñ ñun ñëpp kenn ku ne mu tàbbi ci sa dënn ba noppi doon leer jiitu ci sa kanam di gindi ngir ñu xam ne nitu yàlla buñ koy topp di ko màggal nii defuñu idolâtrie jaamuwuñu lu dul yàlla jëluñu nit teg ko palaasu yàlla déedéet defuñu loolu xam nga lan lañuy ñuy def yàlla gis nga jant bi ngeen di gis dama bëgg ngeen may ma tuuti déglu rek ma mottali fii ak weer wi ngeen di gis ak géej gi ak dex ak gar kenn ku ci ne li muy def jëmmam taxu taxul mu di ko def noonu la ñu jàngate nitu yàlla jant bi ku ne xam na ne ndigal la am ci di leeral waaye leeralul boppam ngir fa mu jaar dëgg la wala dëgg waaye nee leen waaw waay jant bii day leeral lépp di tàngal li mu war a tàngal waaye nag tàngalul boppam leeralul boppam xam ngeen fu ma jëlee wax jooju mooy damaa gis sëñ Tuubaa buy misaal nitu yàlla yi léeg-léeg ci jant la leen di misaal yax wi diyaa am ka dax wi samsu xaysu naxa yuxsa bihi kulla saxsin zistinaaraati nee na nitu yàlla dëgg yax wi diyaa an ka dax wi sams day laq leer gu toll ni leerub jant bi xoolal mu ji wax te kat xam nga lu mu koy jël jox saa bihi ku la sax seen giste naaraati jant bi moom ku saxu leer rek mu leeral boo xëyee nag tëj say bunt mu lëndëm këris yàq jant bi moom du dugg sa néeg waaye ku koy ubbi afal tuuti mu dugg ku tabax sa këri def ko mu ne rojj ba nga xam ne dara du fa dugg it jant bi du fa dugg moom am na ful kon nitu yàlla ku ko gis saa boo sàkkoo ci moom jariñu jariñu ci moom garab gu am meññent la ciy jóge garab ga du ko jariñu sun borom a ko bind noonu ngir muy jariñe nitu yàlla yi tamit ñoo garab yi tey jigéen ñi mm-hmm. nitu yàlla yi tamit noonu lañu mel ñoo garab yi ñoo yem ndoxum géej it tamit ak géej li ci biir it noonu la mel moo tax ñuy mandaxe ak di nuróole nitu yàlla ak géej ndax dégg nga sëñ Tuubaa tagg na yonent bi ba tey tagg ko ci géej kon noonu la ñuy jàngatee nitu yàlla yi ne ni yàlla bindee kaayinaat yooyu ne leen def leen lii ngir nit ñi jariñoo ko te du leen jariñ dara lu dul ndigal li mu leen sant noonu la nitu yàlla yi mel na ko nit ñi dégg xikma bu yomb xam la na ko ñëpp dégg kon nag la Cheikh ba waxoon ak si nañ ci ca ca ca dénkaaneem yu am solo yi dafa ne woon buñ demee ba ci kanam dana am ñu ñëw yor ay saam yu bon di ko sànni yoonu murit waaye nañu xam ne sëñ Bamba xam na bu yàgg ne daañu ñëw moo tax aj na yoon wi foo xam ne aw saan du fa àgg xam ngeen ku ma ko wax sëriñ Cheikh Mbawar ci kii laay waxe moo ma ne Cheikh Ibrahima ko wax nee na am na ñoo xam ne ñu ngi yor saan yu bon fas yii nii ñëw di ko sànni yoonu murit te xoolal ba mu ko waxee te boobu amagul waaye nañu xam ne sëñ Bamba xamoon na ne dinañ ñëw ba yóbbu na yoon foo xam ne aw saam du ko ànd sëñ Cheikh ma war ne ma waaye nag naa la ci tegal sama waxi bopp de ma ne ko faa luy sa waxi bopp mu ne gis nga aw saam boo ko sànnee te àggul fa mu jëm booy boo jóg fi nga taxaw ndax bu la ko fekkee du baax mu ne ma loolu maa ko ci dolli waxoon naa ne tamit lu ne dana nuyu yoonu sëñ Bamba bi wax naa ko ci ay kaset ba tàyyi nit ñi defe ne damay addis ak siw ñu ci ma ne ndax agsi wuñu ci te dégg ko wolofam yu set yi lu ne dana nuyu yoonu sëñ Bàmba buñ demee ba ca kanam léegi lépp nuyu nañu waaye bu boobaa lu ma daawul def luñ ko ci boole boole du ci lu ma daa def luñ ko ci génne génne ci la te it agsi niñ ci lu ne nuyu na yoonu sëñ Bàmba te kenn ku nekk Cheikh Ibrahima waxoon na buñ demee ba ci kanam ñu bari li seen gëm yal nañ ci yàlla musal di yàqoo ak seen taalibe nee na xam nga lu ko yàq duma sa morom ni kenn ku ne li ci xolam daa defe ne du moroomu moroom eh, jàkkaarloo mm-hmm. du moroomu kenn kenn la moom ci sëñ bi maanaam it kenn la ci sëñ bi moom li muy def lenn la ci sëñ bi leneen du dara mm-hmm. Cheikh Ibra nee na bu boobaa maa ngi leen di yee doom kenn du moroomu kenn mm-hmm. moroomante amul Cheikh dafa la am xam-xam Cheikh Ibrahima nee na moromante amul kenn du moroom kenn ñu ne ko faal loolu nu mu mën a demee noonu mu ne kenn ku ne sa jëfay sa morom. daal kenn ku ne sa jëfay sa morom kenn du moroom kenn kenn moromantewul kenn kenn tolloowul ak ndax bis pénc kenn du woo kenn naan ko jëfi diw ci leen lay atte wala yàgg diwa doon ànd yéen la ñuy kenn ku ne dañ lay fay sa jëf kon Cheikh Ibrahima nee na ndekete nit li mu war a bàyyi xel ci xam ne mooy moroomam mooy jëfe ndax kooku bu ñëpp demee mbokk yi dëpp ñu denc ko ba noppi Cheikh rek nee na kooku rek a fay des muy jëfam nee na kookoy moroomam wa wajadoo maa amiloo xaadira lu mat a xamangoog nag bu kenn xoolee kenn benn bët bu kenn suufeel kenn bu kenn jàpp ne kenn la gën a kawe bu kenn jàpp ne yaa gën a kawe kenn xam nga nit lu mu war a gëstu jëfi boppam ci la yoonam war a nekk loolu itam lu ma tax xam la ndax kenn ku ci nekk fi mu nekk nii li ngay lijjanti mooy lu nit ñiy def waaye yow sa yoon nekkul ci li ngay def te musiba ngoo waaye newoon na buñ demee ba ci kanam lépp dana doon benn te duma fekki kenn waaw Cheikh Rafa la ko wax de xam naa nag boo ko waxee ab dof mu ne xanaa daa bëgg wax ne ñëpp Baay Faal la doon déedéet ñëpp dañuy dem ba nangu ndekete doxinu Baay Faal rek a wóor loolu lay wax lépp dana doon benn te duma fekk kenn waaw kon nag nañ nañ góorgóorlu bu baax a baax li ñu waroon a gëstu yëpp kiiwul waaye noo ngi ñaan ci barkeb aaya bi muy bëgg a wax te rafet nañ njort ne moo nekk ci sëñ Moustapha mii يالله دفل نكو الذين امنوا واتبعهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وما علقناهم من عملهم من شيء خنا خملو ني يالا نيمي فاي دا واخ ني كيب كو خامي نيك نغي تي گم دي دوخ تي گم با يالا نانگول لا سا گم سا سا جود توپلي تي گم جي واخول سا سا جود دي باركيلو لي نغي گمون واخول لولو déedéet déedéet waxul loolu de sa sët juddu rek di barkeeloo li nga gëm ak di tiitaroo li nga gëm déedéet dani wa tabaatuhum zuriyatihim bi imaani yàlla nee na sët yooyu ku ci juddu rek foo ko seen jàppal ne bàyyi ma nga noonu mooy zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu ñu góor góorlu ci bu baax ci xam ne doon dara ci nitu yàlla moo gën di ko tiitaroo di sant sëriñ bi sëriñ bi sant laa ko gën wax naa leen ko sama nettali ba tey dégg ngeen ci internet bi wax naa ko ci ay waxtaan ba tey sëñ Mbàkke Njaay Abdou Socé nee na ma bàyyam sëñ Abdou Socé Njaay nee na ko te looloo xew de Cheikh Ibrahima daa xëy am ko ko romb ne ko jërëjëfe Fall yuuxu ca kaw mooy ne nga xam ne fu ñu ne kenn du dégg te defe nañ ne ab wax rek la jërëjëf Fall di wane ne da koo gëm Cheikh Ibrahima faalewu ko Cheikh Ibrahima rombaat ko mu ne ko jërëjëfe faal Cheikh Ibrahima wuyu ko daal di jàll bi mu demee ba mu yàgg mu daal di mu daal di newaat ko jërëjëfe faal Cheikh ne ko yaa ngi ma naan jëf boobu ba léegi rek te jariñu ma dara ndax man sëñ Bamba wax na ma ko ba noppi te yow boo góorgóorloo ba ma wax la ko benn yoon rek boo góorgóorloo ba ma wax la ko benn yoon koo romb mu xam ne wax na la kon fexe ba sëriñ bi gërëm la benn yoon dafa gëm foo tolluy gërëm sëriñ bi te sëriñ bi gërëmu la benn yoon kon nag dénkaane yooyu buñ ko jàppee waxtaan nañ ko jàppe lu ñu war a jëfe ko jàppe nu ñu war a doxe nañ ko jàppee ne loolu mooy rafetal sunu taalib ah, waaw xam naa ko xam naa ko xam naa ko waaye lu ñu ba ñu may àggale li may wax dégg nga kon noo ngi sant bu baax a baax di gërëm suñu Moustapha bu baax ndax moom moom a jox billet ma ñëw fii ngir ma fekke si bés bii te loolu ñi koy def ci ñim bokkal bari ñu kon nag sant naa ko bu baax gërëm ko bu baax ndax xam na ne alali Cheikh Ibra la te du xeex alali Cheikh Ibra moom waaye bari na ñoo xam ne banqaas bi ñu taxaw lañuy ñu yor jaasi di ko gor kon nag non lay ñaanal gudd fan ak wir ci barke see seigne Abdou Sakkoor barke Cheikh ibou amin di sant ñi fi tew ñep serigne Saliou ñoo ngi leen sant yeen wa daire bi nga xamanteni bi yeena yor federation mam Cheikh gis nañ sen taxaway seigne fallu ñoo ngi lay sant bu baaxa baax di la sant bu baax di la ñaanal gudd fan ak wir amin waaw. sëñ daam kon noonu rek ñoo ngi sant ñun bu baax di yeesalaat suñu kóllëre rek sëñ Moustapha xam nga fi mu ñu féete te bu ko neexoon bañ ñu faa féete ndax taalibeem dong lañu waaw kon noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.